jàmm gan yaa jàppale jigéen ñi jàmm gan lay jaay asu mbaye sa yaay ibra njaay mu nuy jooy ca noppeegu nu eh, sa baay moo daan dëgg bu mu gàccee ca jàmm lay jaay borom baa ba gaaraas laay woo noon lu may wax yaay lamb ji neex na woo yaa dajaale woo samba yaa ne ngan yaay mbari bare leen kuy bare dangay daanoo laale baaxu góor boo daanoo lu may wax yaay lamb ji neex na woo yaa dajaale woo boo daanoo samba yaa ne ngan yaay mbari bare leen kuy bare dangay deey lay njaay man de lay duma tàyyee di la way ah man de sama promoteur ba மங்களிர் combat de la soirée muy mercredi 18 décembre 2019 fii ca Sadio mi ba Mar Diop ñaari mbër yaa ngi xeex ci diggante Ndiago ak Armé 2 oh là là Armé 2 génne ko perkel Ndiago song ko Armé 2 ngi dóor Armé 2 Armé 2 bu jàpp si kak mbaaw mi ngi dóor oh là là Ndiago écrit ba rajoonu Armé takk na Ndiago Armé 2 Armé Deux ngi door Armé Deux ngi door Armé Deux njaago ndeysaan njaago moo ngeem moo ngeem lu weex takk ci morceau bu bleu moo nekk ci écrit ba da jonnu Armé Deux moo ñëwoon ginnaaw ndeysaan oh là là Armé bëreel bàyyi door yi dalay daan waaw waaw armée bëral ba do do njaago daan ko Cheikh Omar waaw daan na de ma supporter yi oh xoolal supporter yi Cheikh Omar la ilaha illallah oh la la silence jërëjëf Fodé yàlla ko yàlla yërëm Fodé yàlla ko yàlla allo allo allo. arbitre sifflé na ci diggante Trompeur féetee sunu ndeyjoor Pape Socé féetee sunu càmmoñ Pape Socé ak Trompeur ñaari xale yaa ngi lewto dara amagul Pape Socé Trompeur ay ca daje leen mu jeex. kenn demagul ci ñoom ñaar trompeur daa bëgg a dem trompeur daa bëgg dem da baax trompeur moo bul xonq li buur mais daa bëgg a dem Fatim ah dafa bëgg a dem daa bëgg a dem waaye Pape Socé koy topp Pape Socé mooy diriger mooy diriger ah Pape mooy diriger mooy diriger général Trompeur dem bu ñu dajee xeex bu métti dina am Fatim. ndeysaan Trompeur Kër Massar Mbolo. Pape Socé. ndeysaan écrit kaay baax buur. ay ca kon. bàyyi leen bon bon lu bi ay ca. buur kul peñ dalagul congo amagul. dara amagul. yëfi tàppet daal laa fi gisagum fan. waaw yëfi tàppet moom la moom nga fi gis. dañ leen fay na nu bare eh waay. eh gis nga. waaw trompeur. ndeysaan. Pape Socé trompeur. dafa guñu dara. jàppante guñu bëree guñu. دور كربان دلوغول واي بور خولا تفاقين مرادة لايسان اسبانيول ترابخا موغاي تشالي تشالي ايه خيخبا كربان جوهي إيه، تاكنا فاتم كربان جوهي تاكنا كاي تاول ايه فوجم تاول اه فوجم جيخنا جيخنا ترمبر دارنا باب صوفي واو تشانغو ملاي ووت يا بو خولا تشاقبال بسرطة بكو يوتو دارنا سيبوتيري انغا يتبقى دارنا 3 victoire la am ak benn défaite. kan kan moo la daan. xaaye moo ma daan xaaye xaaye moo daan quoi xaaye waaw moo ma daan waaw. nga ñëw tey bëre ak sa adversaire lan nga. waaw sant yàlla rek di sant bu baax di santaat yàlla bu baax booy di sant tamit ñi ma jàppale si combat bi ku si mel ne Adama Mbaye sama doom yaay la bilaay wallaay su ma amee bis xoola du am jàmm Père Moussa Ba maa ngi koy sant bu baax sama waa koñ ñëpp maa ngi di bëgg wër a wër sama yaay ak sama baax moom aw ma seen fay ak sama grand frère ñoom seen mbay ñoom ma daar ñoom biruma bilaa walaay xaalis xaalis bu bëri lañ may jox barke yàlla te defalu ma leen dara sama waa famille ñoom maa ngi di bëgg ak sama waa asos boo ko yéene waa boo ko yéene sa du ma sol maa ngi di bëgg xaalis bu bëri la ma jox ak sama doom yaay soq soq soq dugub ak jos marwaan waaw maa ngi di ma bituwaar ak sama yaay aarama jóob boy di samedi ñëpp foo jëm foo jëm waaw li sama kanam moom maa ngi si ginnaaw gaay rek nan ma jox samay morom rek ma daanal ba si kanam arabana yele jag na tago fara jogom jaay damel yaay dudu yaay kat dem na kuma xeyla xala bala darana ma xëyee la xala bala mi ci kañ ma lay te nga sango maar ndaa naan dem na ndaa naan dem na ndaa naan dem na ndaa naan dem mbay baayu xaadim càmb ya bi geeg mbay càmb bu ma xëyee mbay la numéro 2 féetee seen càmmoñ. grenade dafa gën a daju day mbër mu daju. Ah, waaw mais mais Ahmed moom tamit daa bëgg a fayu. waaw dafa bëgg a fayu nag buur. ñaari mbër mu natt bu ñëwee a fayu. waaw ndeysaan door fayu. naa ca dëkkool dëkk la woon ko tas. waaye léeg mu yàqal mbër combat. <laughs> oh là là erreur. buur. Ah, Ahmed jéngu na. Ahmed Amet jéngu na waaw songoo nañ songoo mel ni bu samboo ci xeex bi am dara bu ci samp am dara parce que raan numéro 2 da koy bëgg di kor di dóor takkaat na gis mbërum takk la mbërum takk la da koo bëgg a takk bi tër ñu ko mbërum takk gis nga mbërum takk la way sama ku daanu arbi atte na jël la amul jox nañu victoire Ahmed Gambia est-ce na Fatim ay mbari bare leen kuy bare dangay daanu laale baaxu fër boo daano yow lu may wax yaay lamb neex na woo yaa dajaana nga Fatim Dabakh safiyatu aram banko njaay mu njaay biram xuja tamb nga doyloo mbaalo njaay biram xuja tamb nga doyloo faatimo da maalik aa ah, ay meeri biram xuja tamb nga doyloo bakareek dara maan aram loo kumba caam mbëgguma pend ak faate pend xar yalla bop jor nga doy loo fatim da bax malik man de sama waajaa ngi nii ak beton armé bu jàmm gën ci ka mbaaw préparé soo dor bu cheikh mbaba ak beton armé bu jàmm gën ci ay lay njaay man de lay duma tayye di la way ah man de sama promoteur baa ngi nii waa jàmm gën nee noonu buñ ko waxee nee nañu yow a yaa jàppale sone su jàmm gan yaa jàppale jigéen ñi jàmm gan lay jaay asu mbaye sa yaay ibra njaay mënuy jooy ca noppeegu nu eh, sa moo daan dëgg bu mu gàccee ca jàmm gan lay jaay borom baa ba woo non lu may wax yaay lamb ji neex na woo yaa da jaare woo samba yaa ne ngan njaay mbari bare leen kuy bare da ngay daanoo laale baaxu góor boo daanoo lu may wax yaay lamb ji neex na woo yaa da jaare woo boo daanoo Samba yaa ne ngan yaay mbari bëre leen kuy bëre da ngay daan ba xiyaay waaw Samba yaa ne ngan boo daanoo lu may wax yaay Samba nees bu bës ko saw ak yokku coow bu Écurie Ndakaaru yokku coow a ngay seerewaat lapp taake ga woo la la nees ku day dal da kor di dóor oh la la da koy kor màmm na la ilaha illallah ah ah oh la nees bu Bosco Sow a taxawal yokku coow taxawal ah away signe de fatigue moom yokku coow <laughs> kurbeñ be dal la ilaha illallah ñaari mbër yaa ngay damantey baaraam ay yokku coow taxawal bëre nag waay yokku coow taxawal bëre yokku coow ñaari mbër xeex nañu yokku coow oh, yokku coow a ngay dóor ci suuf bugguma kor di dóor a kor di dóor nees yàppul fen mooy sànnu neesa ngay ngemb neesa ngay yootu ngemb nees écrit bos kasaw yokku coow ndakaaru oh là là nees yàppul nees yàppul nees lu muy yokku coow nees ngi koy dugal ci biir géew mi ay yokku coow bëreel waay te nga bàyyi dóor yi waay ah ca ngay uh, yokk coow nees ñi ci suuf jogaat nañu wala oh la nees rakk ci lay bay ndeysaan champion bu mag boobu nees da ko bëgg a yi daan na ko nees daan na yokk coow nees daan na yokk coow waaw ça va dama barki Seydina Mouhamed góor gi sëyee cinq heures mel damay yee di ma yóbbu géej amba yaan billaay walaay ba sama doom nday jàpp si combat bi fay seemay mënu ma fay mënu ma fay mënu ma fay suñu kii ñaata combat premier walaay sama yaay sama yaay dafa génn àdduna dimanche bi passé ak a neexoon sama njariñ parce que Seydina Mouhamed Moustapha Faye boo si ko ma ay seen actionnaire bay bas dañuy sonn si man bay bay bas champion ñam waa doolu ziar da am tay combat bu rëy sa diggante ak Abou Ndiassé waaw Abou Ndiassé grand ah? ko grand contre petit la grand waaw waaw grand frère moo jéem a nax petit ci loolu lañ taxaw nii fu mu toll nii. grand frère mooy jéem a nax petit. waaw ci loolu fa lañ waaw fa la toll. mais ñu gis ay nga tuus tuus mu neex. waaw démb laa ànd ak teg ko waaw. sant ñi Birame Gueye ci rajo Diagne Diakhar Ibrahima Manga xam nga ne dañoo dégg baax ñun waaw démb nañ ànd teg ko def ko ba mu neex xale yi kontaan. xaw ma làkk boobu nu mu yi xaw looy làkk. ah li ma balaa maa làkk dama bëgg nga xam ne journaliste yëpp. dama bëgg ñu wax ci ballon d'or Sadio Mané bii man bëgg ñu wax ñu teg ko wax ko man loolu ma intéressé di jaay dem la ballon d'or bi Sadio ko moom kii nag bu arbitre na për noo tienes médo para qué arbitre na për noo tienes médo solamente luchar et gagnar no e xuuro dafa day xeex wala day bëre lépp mën naa ñëw waaye bu heure ba jotee rek ma def ko bu heure ba jotul ma xaar waaw eh la. Ndiassa nuyu waa Ndiassa. Ndiassa. waaw. mënuñu wax instant bi waaw bëre daan ñibbi incha allah waaw waaw loolu lañu wax mais bar bi ne prix mu duma ko daan incha allah Allo allo c'est bon Cheikh Omar quatrième combat de la soirée arbitre sifflé na ci Cheikh Mbaba Ndaysan ak béton armé béton armé moo d'or. suñ d'or, <laughs> béton armé tee nga def nang sooga door am na lu mu dindi sànni sooga door ak béton armé béton armé jàmm gën si baaw songoon nañu waaw béton armé teeyoo sooga door door na sooga door door na door na sooga ma supporter door na moom oh! non sooga door la ilaha illallah ter Papis nuyu naa la buur maa ngi lay fay li na doon coow léegi coow li jeex na loolu la yàlla dogal de mais Papis est-ce que fi Modou toll ku ne xam na ni ama seen bi mu téye couronne bi situation bi moo ko daloon première sortie am ci la ko ñàkkee est-ce que le couronne n'est en jeu non non Eumeu Sène yàlla moo tuddoon ne da koy yor benn année année bi su topp mu ñàkk ko suñu borom moo dogaloon loolu Eumeu Sène du Modou ya te Modou moo ko jël Eumeu Sène yàlla na yàgg ci Modou xama mu sax ci moom am nañ yaakaar daal nañ ci am ndam te yàlla nañ may ndam. mais xam nga toppante bi dafa yàgg Ama Baldé dafa gëmoon ne que tey ku la daanoon cem ba pat loolu yàgg na fu mu toll danaan il faut que ma daje ak Modou est-ce que jàppale dafa taxaw fu dëgër ba noppi soog a laaj. non non du ah loolu yaakaaruma ko de xam naa daf ko teg ci cadre que mbër la rek jàpp ne moom mën na daan Modou ba des fois nga toog di seetaan nit bis bu bëree nga ne kii suñu bëree mën naa ko daan yaakaar naa foofu rek la ko teg ci sportif mais pas ci côté ay gàllaaj ak yooyu ci li ma yaakaar. moom dafa gëm ne que il sera le le nouveau roi des loolu la gëm. waaw loolu la gëm mais ñun tamit dañoo gëm ne lii pareeguñ sax pour joxe ko. pareeguñ pour jox ko fu ngeen ko ko teg. mooy liggéey bi ci war mi ngi koy def. mais ñi mu daan ba jël couronne bi ñu liggéey liggéey bi ci war. waaw ah, loolu ñooñu ñooñu la man ñooñu dëkkuma ak te gisuma leen man ki ma dëkkal ak li ma gisee muy doxee <laughs> moom laa sañ a wax ci moom. mais Papis Ama Baldé ngeen war du Eumeu Sène du Bombardier du keneen xale la comme yéen te am na doole mën na bëri am na fit. c'est pas la première fois di bëre ñu ko ëpp doole. loolu moom bëreeg Balla Gaye bëreeg Eumeu Sène bëreeg de Guiers yaakaar naa ne bëreeg Ama Baldé war laa jaaxal de. su amee su amaa jëlee couronne bi nag. ah oui loolu du am waa incha allah yàlla du am sax <laughs> déedéet du am incha allah. su ko jëlee. du am bu soobee yàlla. su ngeen ko daanee. la mooy nekkal seen ginnaaw ndax booba lamb ji lépp jeex na. instant nii ñun pare nañ. li waroon def yëpp def nañ ko fi ñu dañuy bëre nii. <laughs> mais am na ay bor yu ngeen fayagul. waaw dinañ ko fay incha allah avec le temps yéen a ngi fi ñu ngi fi dinañ ci xam dara yàlla baax mais Ama daal am na bés. waaw am na bés dana xam ne am na bés ñun ñu ngi koy waajal te bés bu ñu fonk la nag bés bu ñu respecté. waa Pikine ngeen ko seqal <laughs> la rek mënul passé cadre sport. na rek la. lamb kese la mënul passé lamb waxtu dina bëri nii mais xama mais arène nationale lañ koy bëree est-ce que du opportunité ci ci Ama. loolu du ci dara ñun yàgg nañu fekk si nit fekk si nañu sax daan loolu dara. mais làmb ju bari ay campagne la. waaw loolu lañ ci bëgg. campagne ngeen ci bëgg. waaw. li ngay wax waay moo wax li xam na loolu. loolu da lañ ci bëgg. box sax lañ ko war a def wala ñu def ko MMA. nañ ko bëgg a corriger. waaw non nañ ko def box wala ñu def ko MMA. yéen sañ ngeen a Modou sañ naa dugg ci benn kaaf. cooki. yàlla xam na ne kaaf sax dafa rëy. <laughs> yàlla baax na wax baaxul fu jëf war wax amu fa yoon Ndiaye. Boy Gueye numéro 2 Mamady Ndiaye eh Mamady jël na guy gi Mamady takk na guy Mamady daan na guy gi Mamady daan na guy gi buddi na guy ga daan yee guy gi jugal guy gi jugal jugal bala ma fekk foofu jugal. jaajëf tubaab yi booy nar faam bi ñu préparé huitième combat de la soirée arbitre sifflé na ci Sikori moo ngeem moo ngeemul Max Mbergane moo ngeem moo ngeemul Lagos si Kori eh, Sikori door na Sikori door Max Mbergane numéro 2 da koy daan oh Sikori il faut faire doucement la ilaha illallah Sikori écurie Dakar ndeysaan mooy xale grand Dakar boobu Max Mbergane écurie l'Amzar. laa ilaha illallah Sikori moo ngem boo xonq Max Mbergane moo ngem boo ngembulul sukk na ndeysaan Sikori Max Mbergane de bu écrit Lamsar Sikori écrit Ndakaaru Sikori Max Mbergane 2 ndeysaan huitième combat de la soirée ndeysaan mu mel na drapeau bi laa seen noonu muy ñëw Sikori Max Mbergane numéro 2 Sikori ndax daf ko bëgg xar xaw ma Max Mbergane ndax daf ko bëgg a xar Max Mbergane ndax daf ko bëgg a far Sikori Max Mbergane la ilaha xoolal ña nga ca suuf Max Mbergane daan na Sikori Max Mbergane te daan na Sikori la ilaha illallah Max Mbergane te daan na Sikori ndeysaan gis nga ni man de Gris Bordeaux Cheikh Omar ah non Gris maa la dàq waay. sama tailleur maa la dàq. barki Mamadou Lamine sama tailleur mën sa tailleur. non Gris mais naa la. Copain maa ngi fay. Gris Bordeaux fi ni benn choix nga am mooy bëreeg Tapha Tine bëreeg Tapha Tine moo fi des coow nañu Gris Bordeaux Ama Baldé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 man aw ma problème adversaire mais dafa fekk mbër nekkul mbër mooy tëgal boppam combat te yi ma seet wax ak man kenn mësu mësul tuddal Tapha Tine promoteur benn yoon ñaari yoon waxu Balla Gaye may wax waxu Boy Niang waxu Bombardier mais li ma promoteur seet si yëpp a saison bi léegi yàlla xam na ni kenn mësuma waxu ko kenn mosuma waxoo la de guerre numéro 2. fi may nii Boy Niang. bu baté ni mbër du deugal bopam combat. promoteur moy xol combat moy xol combat bi ko neex bu koy deug mais man awma problème de choix. xam nga amateur yi ñoy def ay ñoy porter ay choix promoteur yi mën jël lolu tëgg ko fumé li ñol souhaité moy Ama Baldé Modou amna. bi gaay yu toogat te bëgg ko moy Boy Niang Balla donc logiquement tay ñi ñi bëggoon nañu Gris Bordeaux constate ko ak balagay lolu loolu it issue la bu leer ndax yow ak Balla bu ngeen ko constaté coos lu neex. du neex do day neex. da lor moy lamb ji coono lu bari yëpp peut-être manque de vision la rek mais giri Bordeaux Balla yow am nga ci am nga ci ay souvenir. ci aywaay coos ko way wa wa wa fa sa ngay bal la ñu ngay bal loolu tey dañ ko war a dekkalaat sama diggante ak yàlla dañ ko dañ ko dañ ko. loolu Es loolu sahur combat bi combat bu neex. est ce Balla sawar na ci man. lox sawaru jow bal du ragal de. mais dama ne du ragal mais est ce sawar na ci man. ndax fa ngeen jaaroon moo ah ngir ah, yow tamit. ñett xamul waaye ñaar xam. lu Balla xam ngir Bordeaux. ah moom lu mu ba noonu. Balla bu sawaroon ci man dëgg dëgg dëgg. combat taxaw na bu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 ba mu naq saale di wut plan B. Oh, mën na bëgg a xool fu fu gën a nooxee nooyee wala yooyu yooyu mais bala boo xamoon ne fii am fii fii nooy na mën naa la waat ci yàlla day foncer direct. ñëw ngeen constat ko wax jeex. xam ne loolu làmb da loolu loolu dépassé na làmb Balla Gris ah yow tamit la la la la ma xewoon mi ba léegi mi ngi ci mi ngi ci archive yi mais mais nag na dëggal boppam ñëwaat mu leer. ñëw amul naq saale na ñëw. wiir wiir bi jaru ko. cukkuli cukkuli gire ngi ni ay waxam leer na nee na booy Balla la baax na waaye bul wut lu noy yow mom moom won ngeen takusan estat Léopold Sédar Senghor am lu ngeen mosante yéen ñaar kérok cooki ngeen cooki bu metti giri neena amul jall jall ñewal bu ngeen ñewé rek mu neex kon leer na leer na waxuma ko nak ko wax ya ko wax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 Boy Niang bu baté ni mbeur du deugal bopam combat promoteur moy xol combat moy xol combat bi ko neex mu koy deug mais man awma problème de choix xam nga amateur yi ñoy def ay ñoy porter ay choix promoteur yi mëna jël lolu teug ko fi may li ñoon souhaité moy ama modlo amna bi gaay yu togat te bëgg ko moy boy ña balagay donc logiquement tay nit ñi bëggoon nañu giri bordo constate ko ak loolu it issue bu leer ndax yow Balla bu ngeen ko constaté coos lu neex. du neex non day neex. te loolu mooy làmb ji coow lu muy bari yëpp peut-être la rek mais Gris Bordeaux Balla Gaye yow am nga ci am nga ci ay souvenir. bu ngeen ci waay ah, coos wa wa wa waa Fass ngay baal. la ñu ngay loolu tey dañ ko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 paale ah bi sibla na combat bi yàgg na waaye marraine bi ñëw na c'est normal en ak une très forte délégation seeni cuub baax na li ngeen sànte rafet na walaay ndeysaan ndeysaan xeex ba ñu ngi xeex ñoom ñaar tumaane ngi dóor tumaane ngi dóor عجب wallaay ndeysaan ñaar ñi maa duñu match nul Fatim maa duñu match nul Fatim waaw xam nga nag buur fi ñu toll nii ñamante nañu kenn ku ci ne xam nga sa morom di saf maa duñu match nul ah mën na am duñu match nul fàqat ba jeex na tumaani gorel na gore Fatim tumaani goleel tumaani day gën a metti tumaani tumaani tëddal tumaani tëddal ndànk àdduna mu solo na tëdd Fatim waxoon naa ko. jeex na bu ko waxee. waxoon naa loxo bi loxo bi am na problème Cheikh Omar bi am na problème gaañu na gaañu na ci loxo gaañu na Cheikh Omar maa la wax gaañu na ci loxo am nuy naa la fay naa la tey bi nga dugg si stade bi ñëpp kontaan macha allah macha allah merci beaucoup boo gisee bés bi ñu la tuddee tey waaw bés bi moom damay d'abord dama leen di nuyu maa ngi naan asalaamaaleykum di sant yàlla di julli ci sangu-sang yi waa di rafetlu bés bi kontaante rek kontaante torop ndax ki ma tuddee bés bi wane na ne xeebuma benn yoon ñoo bokk yarandoo fa ñu dëkk muy jàmmagan si kàmbaaw ci daar am ay mbokk nag am ay xarit am am am di jàmmam mu bàyyi ñëpp jël drapeau bi tuddee ma ko di ko sant di ko gërëm di wax ni sama kontaante am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam sant naa ko gërëm ko ak jabaram ju ñaawul ji di madame Ndiaye macha allah kontaan naa ci ñoom torop madame ni nga def tey ñëw jàppale monsieur. waaw macha allah comme ni ma ko waxee woon rek sant yàlla julli ci yonent bi di sant sëñ naa Mouhamed di lu sama ñaari waajur waa ñëw jàppale ko rek euh, di wax waa jàmm gën si ka mbaaw yëpp nag ñu jàppale ko. Mhm. waaw euh, lay bu jëlee drapeau tudde ko koddu yàq jéggiwul gan. parce que Codé dafa nekk commune Diamaguène Sicap Mbao di fa liggéey di fa bay waaram di jàppale jeunes yi nekk fa bàjjanu gox nekk fa responsable politique Codé mi ngi ci ndox mi mi ngi ci lépp macha allah kon lay bu jëlee drapeau tuddee ko Codé daf ko delloo njukkal parce que moom moo ko liggéey commune Diamaguène Sicap Mbao. mu ngi noonu kon Abass. ku ma ngoom a ngi noonu. marraine yaa ngi yaa ngi nii. waaw gis nga de xanaa li ci des mooy ñu jox géwél ñu may géwél yi seen wàll. weesu na ko mais nag làmb ji bu weesoo lool yëpp dafa am ku bokk ci ñun ku fi jóge li gën a handicap làmb ji loolu ci la bokk muy Fodé Dramé waaw ñu koy rendre hommage di ko ñaanal yàlla foo mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di kontaan ci yéen ci télé bi waaw di leen xamal ne ñun làmb rek a ñu ñor dara ñoruñu lu dul làmb abu Ndiassé jooy na tey ba mënut a bàkku tey billaahi wallaahi Abou Ndiassé rek jooyul jàmm gën yëpp a jooy jàmm gën yëpp a jooy làmb ji daa ta ñàkk rek waaye kon ñun du ñu bëre si parce que booy affaire bi da leen a def soog parce que booy bi bi muy def accident bi ci seen kanam la loolu dafa am lu muy gisee ci ñoom ci lu bëri bu fekkonté ni mbokk lu mu jégué jégué jégué bu amé problème wala mu amé tolof tolof wala mu génn aduna do béré kon Abou ndias tay du béré jërëjëf. ay mbari bëre len kuy béré da ngay daanu laale baaxu fër boo daano yow lu may wax ya Mbamba production Mbamba garage production. ci diggante espagnol xaa ak Abou Ndiass. san euh, bour bu buur arbitre sifflé na. de cokaas la Abou ndias jàpp ko la bëgg. waaye Tapha ni ma. Tapha defal na tey déplacement. Abu Niasse fayu na. Abu kii sa grand la. non Tapha defal na àgg. Tapha defal na àgg. Tapha defal na àgg jëlal tànk Abu Niasse. ah. guerrier la <laughs> espagnol trabaja waa Espagne jug leen waa bi guerrier la. non Tapha bi guerrier espagnol Tarabaxa Tabagay 2 Abou Niasse écurie Lansar waaw Abou moom jàpp ko rek la bëgg jàpp ko la ko jàppee làmb ji waaye dafa naan loolu mu ngi cokkaas dafa wagi cokkaas non Fass gépp ëmb ko nag tey ndeysaan àndal ndeysaan ñoom Gris Bordeaux ñoom général ndeysaan dafa gay dë Abou Tapha jokkas na léegi. ayca. ah drapeau bi Nabou Ngom la la borom tudd ak Baba Garage production. ay ay xool dafa gëj. bul fàtte ni daaw moo ca su njata fële ca arène nationale. wallaay ndeysaan. gërëyee la. gërëyee la Fatim. non non Moustapha Gueye gërëyee la. saaba Tafa Gueye la oh loola ci garde bi eh, ah ah jël na ko. bàyyi jàmbur Fatou. Eh, abu abu Ndiassé bu ko dooraat ah. eh bu ko dooraat daan ko ah bu ko dooraat la na ko respecté. na ko respecté. lii lan li aja naan lii lan. mais Tafa na taxaw nag moom. pour lan muy taxaw moo bañ pour lan muy taxaw Fatou. damay bañ rek mu xudduloo Abou man la du taxaw Fatima Abou Ndiassé dagg na léew too dafa xamatul lu muy def da koy xunduloo waa da koo bëgg a xunduloo wax na dëgg waaye Tapha yow taxawal nag taxawal nag Abou bul door Abou bul door waaye bul door pour wax la Abou bu ko sañ na da sañ damaa war a ngi xaxat Fatim mu ngi xaxat. Ah. non lamb ja jeex jeex na bu yàgg Fatim. atte na. dañ ko jox avertissement. avertir na si la waat. espagnol Tarabaxa ak Abu yoota rek. Abu yoota rek ba jàpp ko lamb ja jeex. waaye bu ko da ngay rapporté wala da ngaa far daal. déedéet faruma bëre mag la ak ndaw xale mag la. ndeysaan Tapha taxawal Tapha taxawal. waaw na taxaw nag na taxaw buur na taxaw bëre. da koo bëgg a juumloo. koo bëgg a juumloo. c' Babou Ndiassé léeg-léeg mu gàtt lool léeg-léeg mu léeg-léeg mu bu ndeysaan Tapha taxawal waaye Tapha taxawal waaye xool ni muy bandi bandi loo Fatim avertissement avertissement ko yuuxoo Babou Ndiassé nee ko kaay bëre nee ko kaay abu baay jàmbur rek dina ñëw. mais abu si yoonam nekkul ci loolu na. yoonam newut ci. Cheikhou nga yaakaar ni loo yaakaar. bu ko yàq combat bi nii. Ah, moom moom Tafa moom Tafa Gueye. daw bi yëpp loolu la. bëree xale ak mag la. seetaan na li ma lay wax. mais na taxaw. non du mun a taxaw bu taxawee booy bi da koy escanté. est-ce ni ca la dina taxaw yàgg-yàgg dina taxaw. kon la ngay mujjee nga jëkkee ko rek. waaw maa la ko wax. na sama caméraman nee na na taxaw bëre. xamul dara soob maan la. Eh, eh, sama caméraman sama yi day rapport. du dara muus ma amul la Fatim. pour nag. daa bëgg eh assuré na dégg ko gaañaa ngi yuuxoo mais door na kuubu dala. maa ngi bëgg a kontaan. xoolal sa waay. dafa taxawal. xool waay taxawal taxawal waay. non Abou Ndiassé daggaat na léew tooba. xoolal Tafa Gueye waaw. da koy jaxase jamono jii nii nag pour nax ko rek. daf ko bëgg a ko bëgg nax nii rek jàpp. Abou Diassé Fatim lii neex la waay Fatim pour taxawal Tapha nag mu ngi bëgg a nag Fatim waa lay jaay lu ko yóbbu ci Tapha Gueye numéro 2 <laughs> mu ngi bëgg a saboté mu ngi saboté Fatim nee naa lan moo ko yóbbu fecc ma xoola fecc ma <laughs> xoola fecc ma si nax ko la nekk nii si nax ko énervé ko daan ko jeex na. <laughs> nee na gars yi jug leen nee na stade buur ma ne su ma reporté nee na stade bi jóg leen na taxaw bu bëggee stade bi jóg day taxaw. <laughs> yëpp na taxaw. waaye Tapha sa xaalis dara jeex ay Tapha Gueye sa xaalis dara jeex. trois avertissement trois avertissement Lamsaar a ngi bëgg a yàq làmb waa Lamsaar a ngi bëgg yàq lamb li yëpp si lamb waaw da koy jéem nax lii rek nax jéem a nax énervé ko jàpp ko daan mu dem jeex na jeex na Cheikh Omar jeex na Cheikh Omar jeex na lii neex la. non instant baa ngi door a neex. non bilaay. li baa ngi door a. dafa neexul moom neexul tarkindaa yi instant yi mer nañ. jiitee ngi noonu de. abo ngi bëgg a mer Fatick. waaw abo ngi bëgg a mer. te dafa agay loolu la bëgg. arbitre sifflé waat na. Moustapha am na trois avertissement ak espagnol Tarabaxa danaan tey lépp a gën daanu yee loolu lay wax loolu lay wax tey lépp a gën daanu Tapha Gaye de espagnol Tarabaxa Abou Niass écurie ee eh waay waay waay xoola fecc bi waay ee eh waay ee eh waay loolu ngay def Abou day génn day génn génn ndaw na génn. jeex na combat bi jeex na. jeex na combat bi jeex na. combat bi jeex na. ñoxor nee bi jeex na wala Max Mbergane la. waaw waaw waaw. Max Mbergane. Max Mbergane nee na combat bi jeex na. non lii c'est pas dañuy xeex dañuy xeex kontaanuñu kontaanuñu Cheikh Omar mais vraiment Tapha Gueye 2 li mu def tegul fenn dem na retraite franchement Cheikh Omar man kontaanuma tey Tapha Gueye numéro 2 def na loo xam ne bokku ci lam Fass la yaroo Moustapha Gueye ko yar ak Mbaye Gueye Tigre de muy mag ci Gris Bordeaux dal ñew ci lamb indi ngor indi ngar mi indi ñambar tay mu ñew def yefi xalé yi di Dakante, di fo di fecc ba lamb jambur yaqku li tay bokku na ci li xamante ne que lu tax sax ñu respecté wa Fass écrit ba mu jógee ak écrit bu mag la waye tay yaq na lamb ji saboté na lamb ji mbokk yi ginaaw bi ñu jógee Gambie ci digënté ba ma ñoon xoyantal liru jaan wulli tay ñu ngi won fi ci bi Mar job ki ñu fi indi di Baba Garage production ci diggante Tafa Gueye Espagnol Trabaxa ak Abou Niasse Bokoy Lansar kon mbokk yi di leen jox dig daje ba dimanche.